nga xam fi ngay jaar nga wax ak ñi nga war a waxtaanal barke yonent yàlla Muhammad man Serigne Saliou rek laa gëm te moo ma yar moo ma jàngal Serigne Saliou woo tax ma am yërmande ci nit ñi waaye samaw askan bu ma demee ba ñemeetu ma danaa taxaw ne leen ñemeetu ma sama wax jii nag man Sénégal mën naa fee xëccoo lu ne ba mu des wax dara muy ñëw. dëgg la de barke yonent yàlla Muhammad lu ma fi wax ci kàttan ak suñu borom dama naan leen bind leen denc te dinañ ci yàgg baa xam nga beneen mbir. Mm-hmm. Ousmane ci boppam. Mm-hmm. ci jamono jii may wax ak yow ay mbir dana daw wutal si ko mbir yoo xam ne mbir mbiri baatin lay doon du ay wa du kes yoo xam ne wér gi yaramam la de wala dañ koy deeg wala dañ koy liggéey déedéet dañ koy wan fi mu ne ba noppi di ko seggal ci ñim war a waaw dana amaat ñu jege sonkoo ba noppi génn Sonko. dana am ñu jege Sonko ba noppi génn Sonko. dana sëlbu. sëñ bi xanaa waxuñu lu weesu Bart génn ba pare de li ñuy wax. yow li ma lay wax nii du Bart dana am ñu sëlbuwaat ci ñu mel ni ñu nekk ci procès bi te dañuy génn fi mu ne danañ génnaat Sénégalais yi nag nañ jugé ku nekk ku neex yaa xam nooy jugé après mais politique bi dafa lëndëm te dafa des te Ousmane Sonko mbiram daf cee lëndëm ci jamono jii côté boobu. Hmm? barke alxuraanu Karim Ousmane Sonko mbiram dafa lëndëm ci côté boobu. ci côté ñi mu war a àndal ci côté ñi war a àndal mbiram da cee lëndëm moo tax na ci taxaw tey seetlu bu baax te tey nag fi mu ne tey a ngi doog a jot teeyagul de tey a ngi dana gis yeneen teb ñoo xam ne ñi ngi ñëw ci biiram te dinañ ko rax barke yonent yàlla xam ne dinañ ko rax bi ci topp mooy Ousmane Sonko ci boppam ci jamono jii dafa am yeneen yoo xam ne ay nit ñu weex danaan jaw kole si ko te danañ ànd ak moom. ay ay nit ñu weex. danañ collaborer ak Ousmane Sonko te dinañ ànd ak moom xanaa nag sénégalais man man seen doom seen xarit ah ki nga xam ne moo leen di wan ngeen di gëm xanaa jomb naa toog fii di leen kàcc. man di jël li ma lay wax nii lu ci nekk bindal denc dinañ ci yegg. d' accord nit yu war a euh, euh, war Ousmane Sonko. encore une fois ginnaaw bi euh, Barthélemy Diaz. moo Barthélemy sax worom bi dafa oyof de. ba lii dafa oyof. ñi ma gis ñëw gis nga Sonko ci jamono jii ci la war a wutee nag gën kaa gudd ndëgër laay ñu teel ko ay tànkam wax ko mu gën na teey fi mu ne est xam nga ne ñu bari dañuy yàqal Ousmane Sonko ah barke Seydina Mohamed ñu ngi jóg di ko yàqal te buñ gisee nit kuy wax dëgg sax dañuy dañ lay dal sa kaw Sonko na Sonko lii da koo war a wax nit mu xam ñi koy liggéeyal ak ñuy liggéeyal réew mi am na ñoo xam ne tey jii man bu ma leen doon déglu ba tay banaa procès bi te Sénégal tax may xeex. Ah waaw lan moo tax ñun dañuy xaar sax yow nga def erreur ba noppi ñoom ñu ngi ci biir procès bi. te yow li nga mënal procès beeg li ñu ciy def ñoom mënuñu ko 15. boo xëyoon xëyoon xëy dëgg la nag Sonko man bu ma ko bàyyee sax wàññiwu ko dara. Mm-hmm. man yokkalu ko dara ba koy wàññil dara mais benn noonu sax jërta jërta wut waxuma la ak ab soppe bu nuru noonu Sonko ñu ko jege nañ bàyyi di yàqal nañ bàyyi seen am na sëriñ su ma génn nag ñuy profitoo naan nañ wut fii ay nag ak xawma ay lan bu kenn wut benn nag bu kenn wut benn xar bu kenn rend ci benn frontière bu kenn ray dara. dañuy dundee Ousmane Sonko. bu leen jox kenn dara. barke Seydina Mohamed ku ci joxut sëriñ xaalis na ko damaa bëgg nga ñaanal ma Sonko lii yaa ngi yàq sa xaalis ci sama bopp laa ko commencé. Sonko lu soxla bu leen ko jox. seet seet la soxla. waaye Sonko seen biir réew ñun du Sonko Sonko ak réew mi ñoo soxla ceet. goo xam ne da nga leen di orienté na leen def leen lii def leen lee jox leen i ñu xam fi ñu jëm est-ce que xam nga beneen mbir Sonko dafa bari ñoo xam ne tey jii ñi ngi ci biir mel ni ku koy defaral te dañ koy yàqal mais nit ku dul juum amul xanaa kon mënoon nañu Sonko dafa juum li tax mu àndoon ak bàtt te juumul de dafa def li ko war lan moo tax nit ñi mënuñoo wàncewaat température yi ki war a ànd ak Sonko ànd ak Sonko ki war a ànd ak Macky ànd ak Macky président ki war a ànd ak moom na ànd ak moom mee buñ ko saaga buñ ko xas nañ ko bàyyi ci liberté ki war a ànd ak Sonko ànd ak Sonko mais nag li ma gis muy daw di ñëw ci Sonko ci jamono jii ci ay wor Sonko ñi ko jege ci boppam fi mu ne war rabbul këx batu mu ñi ngi jóg chaque jour ñi ngi ci tele yi ñu ci bari di wax di jëf te ànduñu ak Sonko. d'accord barke yonent yàlla Muhammad euh, ànduñu ak Sonko. sëñ Mara le temps nga siffler dinaa ñëwaat ci yow je rappelle que. mën naa jël ay nit ci 77 202 63. ma seetal leen wax leen fi ñuy teg seen tànk 77 202 63 0. seet gi ubbiwaat na nag di jégalu nag ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di ma seetloo am na ñoo xam ne ñu ngi ci rang gi am na ñoo xam ne chaque jour moom ñu seetal leen waaye sëñ ñoom xam nañ sax ci li ma nekk ak fan yi moom maa songu su réew mi moo tax ay ca ay ca doxalal jijee. d'accord euh, euh, sëñ Mara damay ñëw dinaa am lu may ñaan Sonko nag. li ngay ñaan Sonko moom je pense que loolu il faut ñu dem ba ci euh, fin bi vous êtes. ak projet bi jàll it am na yu ma ci jàngat lu bari aji am na lu ma gis ci moom. est que doo ñëw foofu. ci Adji Sarr euh, aji xelam dal na de. Hmm? Mm-hmm. baa xam nga ne aji waxagul. xelu Adji Sarr dafa dal. aji xelam dal na trop. xanaa dañ koo déy. aji kenn déeyu ko. aji la xelam dal. fi mu ne Adji Sarr deux mille vingt et ba tey lu tollook juróom-ñaari Adji Sarr jaar nañ fi. aji ibaadu aji mi yiw mi aji nitu kersa aji mu dëgër fit aji mi naan Ousmane yaa ma daan juutal astaghfirullah baal leen ma ci wax ji dama leen a bëgg a wax rek réew mi dañ ko war a régler tu ku toll ni ku toll ni Seydina Ousmane sonkoo nga xam ne kooku Sénégal xamuñu ko billaahi kitaab bu ma doon Sonko damay bàyyi damay bàyyi ci jamono waaw damay ba parce que day mel ni xamatuma Sénégal gan Sénégal lañ nekk wala man ñii lan laa leen jaral. est-ce que xam nga benn mbir. aji moomu nga xam ne moo ñëw ci procès bi. di aji saar yu bëri. ba tey jii may wax ak yow waxagut te bés bu aji waxee loxo dem gémmiñ waaye nag man man man man man damay ñaan yàlla suñ boroom. aji buy wax yàlla bu sénégalais yi ne aji lii muy wax du dëgg. wala ñam ña ko doon wax naan ko wax nga dëgg yàlla buñ na ko tey waxoo dëgg. bi li ngay wax nii aji dana wax aji dana wax aji dana wax aji saar dana wax. yaa ngi lëndëmal xel yi de. mais mu ah man xel fi lëndëmul Sénégal Sénégal fi mu ne fi mu ban xel fi leer aji dana wax. ndax aji ci am confiance. Euh, non non man du confiance aji. aji damaa bëgg ñu wax ko ne ko demoo ci sotiñ demoo ci kastin aji demoo ci kastin aji buy ñëw dafa waroon a tiit bu dul dara bakkan yi faatu aji warul woon a teg sax cheveux naturel bay bott yi saag ak di cakki-cakki pourquoi aji bakkan yi faatu yépp aji ñëw ci lacèrement te yëgul nañu ñun ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi souffrir lii moo tax ma ne la man ma damaa tiit yaa ngi Feeling Dakar nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar